jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di euh, nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97 point 5 Abdou Khadir Seck moo nekk ci euh, micro bi Mamadou Diawa Diallo nekk ci wàllu xarala gi. mbokk yi samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ñu dellu am mbégte fas yéene ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi. Euh, tey nag euh, ñoo ngi euh, dalal Serigne Mbacke Ndiaye ancien ministre moo jiite nag kuréel gi di convergence libérale et patriotique nekk coordonnateur rappel di rassemblement pour la pérennisation du libéralisme moom la ñu invité tey ci pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu fas yéene waxtaane lépp loo xamante ni rek jëm na ci actualité réew mi wala ci bitim réew monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay kilifa gi di nuyu borom kër gi. di kuy bay waaram ci ci ci ci tool bi tool bi di réewum Sénégal di nuyu sama yaay jooju nga xam ne moom laa dégg léegi muy woy ci suuf muy soxna abi mm-hmm. euh, sama yaale ndax man ku tudd abi rek yaay laa lay macha allah euh, ki nag woy bi mu woy noonu di woy wax bu am solo la fi réew mi tool ak fi àddina toll mm-hmm. di nuyu auditeurs yëpp di ñaan yàlla kàddu gu fi génne yàlla na njariñu réew bi ku ci dégg loo naqari nga jéggal ñu jërëjëf euh, monsieur le ministre fi ñu koy dooree comme sànq si présentation bi yow yaa nekk euh, njiitul convergence libérale et patriotique nekk tamit coordonnateur rassemblement pour la pérennisation du libéralisme euh, ñaari kuréel yi jamono ji ak bi nga leen taxawalee ak ñi nga xamante ni ñoom nga si àndal ban liggéey boo xamante ni def ngeen ko loo xamante ni njariñu réew mi la ban taxawaay la ñaari kuréel yi am te yow nga nga nekk ci. waaw taxawaay bi nga xam ne jàpp naa ni ñaari kuréel yooyu am nañu ko mooy bi ci jëkk mooy fexe ba jàmm di am Sénégal jàmm nekk lonk am solo la mm-hmm. euh, fépp fu ab taal am ñu fexe ci wis ndoxum sedd waaye duñ ci sotti mukk pétrole wala essence euh, ki nga xam ne aussi moo nekk tey président de la république muy le président Macky Sall ñu fàttaliku nii euh, ni ma koy waxee toujours bu doon ñu ne rek du falu bu doon ñun rek Macky Sall du doon président ndax 2012 président Abdoulaye Wade lay àndal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. amiin mu def mission bu am solo ci Sénégal ba sénégalais yi ni ko jaajëf li woykat bi wax naan ku doon liggéey jërëjëf wàcc leen boroom tool ñëw na. ñu nangu loolu. may may may profiter ci loolu di rafetlu keroog bi nga xamee ni neen nañ ñu da di dem deuxième tour. ak keroot bi nga xam ne nañu Macky sàll gañe na kenn ku nekk ci ñun xaw a tàggoo ak sa sago man bokk naa ci ñi nga xam ni euh, booru sept heures ci ngoon jëm huit heures mi ngi ma fekk ci permanence su parti bi fii ci VDN. Mhm. président téléphone bi ni ma foo nekk ma ne ko maa ngi VDN bi parce que boobu dañu doon préparer benn veillée électorale mhm. mu ni ma ñëwal préparer un communiqué je vais féliciter Macky sàll parce qu'il a gagné. mu mel ni dañ may yanoon àddina te yenniku ko lu tax li tax mooy gëmoon naa ne Abdoulaye Wade mënoon na gañe def nañu lépp lu ñu mën aussi pour mu gagné mais gëmoon naa aussi ne ngañaayu Abdoulaye Wade jamono jooju ci réew mi doon na indi fitna joo nga xam ni parce que gis nga li xew Amérique tey. Mhm. exactement loolu am Sénégal. xam nga Amérique ñoom ñu ngi jëm ci ay élection xaw ma kuy gagné mais bari na ci am li tax ma ni xaw ma kuy gagné. Mhm. mooy système votu Amérique dafa demee noo nga xam ni ëpp mbooloo taxul a gagné. taxul a gagné effectivement du dëgg système ba na mu demee la. Mhm. mais américains yi ci ëpp tey bëggatuñu gis Donald Trump. Mhm. bëggatuñ ko gis pour raison yu bari. mais bëggatuñ ko gis parce que bu ngeen xoolee manifestation yu am ci réew mi guddeeg bëccëg dëpp bi ñu boomee xale boobu la te pourtant du boobu lañ njëkk a boom nit. après boobu boom nañ ñeneen. ak li fa ci corona beeg yëpp yëpp. boo gisee donc demee na noo nga xam ne tey. mais est-ce que Ablaye Wade na foofu 2012. ci ci laa jëm si parce que fu ko raw. parce ah que américains yi ñu ci ëpp tey. mbaa boog ñu bëri ci ñoom mënu mën nañu ko ëpp parce que boo nañu ko ëpp day fekk ne natt nga ba xam ne ñi ñoo ëpp ñete waaye ñu ci ëpp tey jàpp nañu ni pour ñu am jàmm il faut waa ji jóge fa. Mhm. Sénégal tolloo nañu fa depuis 23 juin. avant ñu egg élection 2012. 23 mhm. juin la tàmbali. fàttaliku nga manifestation yi nga xam ni. Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm seral euh, suuf ci kawam. amiin organisé wu na ko place de l' indépendance. 23 mhm. juin. Mhm. émeute yi nga xam ne moom tudd émeute de l' électricité. Mhm. ba man mi waxee yow ma bokk ñi nga xam ne ñëwoon nañ jamono yooyu taal sama kër toj ko. donc Sénégal eggoon foo nga xam ni bari na woon ñëw nga xam ne gëm nañu ni tey Abdoulaye di quitté réew mi rek moo leen di moo leen di jox. Euh, moo mooy indi jàmm te loolu la ko indi woon. du résultat économique. parce que ku nekk mën na seede ni. Abdoulaye Wade fa mu yóbbu fekk Sénégal ak fa mu ko yóbbu ay jéego yu am solo la ba am benn waay boobu dafa am lu ma daan wax ni ma est-ce que xam nga réalisation bi gën a rëy ci la Abdoulaye def ma ne ko lan la pour yow fekk boobu man maa ngi wax ay pont maa ngi wax tëli maa ngi wax leneen ak leneen mu ni ma c'est d'avoir redonné confiance aux Sénégalais maanaam Abdoulaye de waroon na Sénégalais bi ni yow mii doomu Sénégal boo gënul américain bi américain bi gënu la boo gënul français bi français bi complexe boobu la dindi loolu la dindi tey loolu daf ko doon wane ci ndaje mu nekk daan nañu ànd ci benn ndaje muy Nations Unies muy FAO muy feneen bu jëlee kaddu bu wax da naan mais est-ce que ñun buñ jëlee avion du njibbi saay saay su du ñu daaneel suñu avion bi ci yoon bi mm-hmm. est-ce que defe nga ne hasard la 2002 Sénégal ñëw gagné France du hasard mm-hmm. loo gis am na lu ko waral c'est parce que Abdoulaye Wade fexoon na bu dugal ci bopp sénégalais loo nga xam ni bilan la bu ñu dul teg baaraam nii. d'accord léegi léegi bi mu la waxee communiqué bi. alors donc loolu moo tax ma ni Sénégal fa ma jàppoon ne egg nañ fa jamono ak yeneen ak yeneen nga xam ne du waxu rajo. Hmm. ndax kilifa day am secret. kilifa day am bàmmeelu biir mais biir nañu ne ñun victoire Ablaye Wade doon na taal Sénégal jamono yooyu. alors bi mu ñëwee wax ma loolu ak loolu ma xamoon ak loo nga xam ne ginnaaw bi laa ko xam ma ne alhamdulilahi yàlla gën a bëgg Sénégal. Hmm. parce que li tax ma wax la loolu premier tour bi bi ñu ñëwee ba résultat yi génn. ma ñëw dugg bureau mun ma yow yàlla moo ñu jox pouvoir ñu di ko exercer fu mu ko yemale fa lay yem prépare nous à aller au deuxième tour gëm leen démocratie gëm leen peuple sénégalais. Hmm. kon bu ñu demee ba deuxième tour yàlla def loolu mu wëlbatiku ni ñu ki jël pouvoir bi seen frère la bu leen ko combattre bu leen ko wax lu ñaaw alxames bi mu woote conseil des ministres ñu ñëw mënuñu Macky Sall et votre frère mettez-vous à sa disposition muy benn ñaareel ba Abdoulaye mi nga xam ni man bokk naa ci ñi nga xam ne tey tey bu doonul kenn dama àndaat ak moom Mhm. mais leer na ma nag dootul doon candidat loolu yàlla dogal la. ndax mhm. àddina mooy doxee noonu. comme dem na ba dootul doon candidat yàlla dog na ci biir famille bi tey bul fàtte ni moo daan wax ni dama bëgg ngeen garder pouvoir bi pandant cinquante ans. Mhm. les libéraux moo doon wax ni. xaal bu nekk ñam naa ko waaye bu safe ni suukar suma koo mos. enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre moo waxoon Serigne Saliou mu tedd ma yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barke ni ko ñaanalal ma kii ndax ëllëg su ma jógee mu mu wutuma ci bopp Sénégal. kon loolu lépp boo ko dajalee. muy frère boo nga xam ne tey moo jër pouvoir bi di ko exercer jàpp nañu ñun suñu warugar. Mhm. mooy jàppale ko. Mhm. ba fu yàlla yemale nguuram ñoo xam ne foofu la ko yàlla yemale ci suñu biir. muy man muy sama morom. waaw mais loo si dox ci mbirum ci ñi yéen ñi nga xam ne tey wala ñi nga xam ne tey ay libéraux lañ. yow nga yor euh, kuréel gi nga wax ni yan jéego yoo xamante ni yéen teg ngeen ko ngir mébét bi Abdoulaye Wade amoon pour euh, ñi nga xamante ne ay frères libéraux lañ yor réew mi plus de cinquante ans ak xam nga yéen tey bëri na ñoo xamante ni réeroo nañ ci seen biir euh, ñii jaar nañ fi ñii jaar fi te ñu si baree bari ay libéral lañ ban rôle nga si joué yow yow ak sa kuréel euh, Serigne Mbacké Ndiaye. benn rôle bi boobu mooy tey fexe nañu ba directement wala indirectement ñëpp ñee nekkoon ay libéraux tey ñëpp boo wàññoon téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom ngi ànd ak Macky kon benn résultat boo ko bu ñëpp teg bët la. boo si dox yow. waaw ak man ak ñi may àndal xam nga man du may bëgg ni man parce que man man man leneen lay niru ndax doo jën ndox. Hmm. donte xëy na mën naa ci gën a fës donte xëy na am na lu ma ci yàlla may as ndax nag dama la wax léegi nii nag Sénégal man may Messi xam nga hmm. Messi. waaw waaw ah, kay loolu laa bëgg nag mu leer. Hmm. te dama koy assumer. donc am na lu ma ci dox mais je préfère dire que ñun liñ ci dox mooy benn tey ñi ëpp ci libéraux yi jëlal liste bi nga xool. ñi ci ëpp quatre vingt dix pour cent wala quatre vingt pour cent ñi ngi ànd ak Macky Sall am ñu ko fisal am ñu ko fisal muy benn. Mhm. ñaareel ba mu indi constitution bu bees. teg ko muy projet. référendum la woon waaye ñi ñu ko séqaloon jëlewuñ ko woon référendum dañ ko jële woon ni euh, oui wala non maanaam Macky Sall ngeen ànd wala àndu leen ak moom. te it gëm nañu ni. su non bi ëppoon doole wii ñu génn ci mbedd mi taxaw réclamer la démission de Macky Sall kon ñu xar ci suñu tànk tubéy yàlla suturaal ñu ba majorité bi ñu dégager ko en faveur du oui. ñetteel ba ñuy dem élection présidentielle c'est important. Mhm. li tax mu am importance mooy. léeg nga dégg ay nit di ñu taxé ne ay transhumant ngeen. lan mhm. mooy transhumant. parce que Macky Sall ñun wax naa la ko léegi bu doon ñu ne du falu ndax 2012 2019 mandat boobu ñun bokkuñu ci ñun mandat boobu Abdoulaye Wade lañu àndaloon Macky Sall gagné. Mhm. mais bi ñu demee ba 2019 mandat Macky Sall jeex na yoratul woon dara. ku ci nekk toog ngaak moom waxtaan ngaak moom sàkku na nga jàppale ko ñun ñëpp ñu d'accord ci jàppale ko pour un autre mandat muy mandat bi tàmbali deux mille dix-neuf moo tax ñi nga xam ne léeg ñu naan ñu wuy wuy yéen bokkul ay ay ay ay transhumant ngeen ma ne non xam nga fan ngeen moom leen taxe transhumant mhm. bu ñu dem doon dem élection deux mille dix-neuf ñun ñu bëgg ñëw jàppale Macky Sall ngeen nañu bu leen ko jàppale parce que bokku leen ci ñun mhm. ngeen dem xeexal seen bopp mhm. bu ngeen gañee ku leen fekk c'est transhumant la waaye yéen ñëpp fekke ngeen ko mhm. bi ñuy dem élection 2019 yéen ànd ak moom yéen ànd ak moom xeex absolument bari na ci ñoo nga xam ne tey ñoo ñuy attaqué waaw te ñooña uh-huh. kenn ci ñoom ñemuguloon génn battre campagne mais yéen euh, ñi leen di faral di wax transhumant ñu si bari ñu ànd ak Macky Sall lay doon sa taxawaay tamit yéen est-ce que président Macky Sall am na reconnaissance boobu monsieur le ministre waaw dama ni xam nga effectivement ñu ci bari ñu ànd ak Macky Sall lay doon mais dama ni dégg xaw ma ndax dégg li ma wax uh-huh. bi ñuy damay jël benn exemple parce que boobu la ñu gën muy Moussa Sy Parcelles Assainies bi ko président nommé. président mhm. conseil d'administration. Mhm. dégg nga lu bari lu ñu ci wax. Mhm. te pourtant yow fekke nga ko keneen fekke na ko. campagne électorale bii passé APR ba la ñuy génn dem meeting Parcelles Assainies musaa si day taxaw. su musaa génnul kenn du meeting. alors ki ngay dem di xeexi ni ko kaay ñu ànd mu jiite combat bi. parce que ñu ci gën a bari suñ ginnaaw lañ nekkoon. la man bi il est jamono jooju daf ma fekk dëj parce que ma soxna génn àdduna. mais terewul dugg naa def naa battre naa campagne électorale. non seulement au Sénégal. mais dem naa à l' muy Maroc muy Mauritanie muy feneen ak feneen. alors mu metti ngeen ànd di xeex. ba ñu am victoire. ñu ne la bokkoo ci. waaw est ce que reconnaissance am na seen diggante président Macky Sall. am na bu wér. mais pourtant am na ñoo xam ne nañu amul reconnaissance boobu amul ndax bëri nañu ko jàppale mhm. ak risque bu ngeen ci man di fekk ak lu ñu leen di man di wax ngeen d' accord dem ànd ji ak moom am na ñoo xamante ni jàpp nañ ne reconnaissance boobu noonu amul seen diggante ak président mais ñooñ mënuñ ci xam dara mhm. lan mu koy firnde ndam reconnaissance mënuñ ci xam dara na ñoom lu ñu gis ñu ni conseil des ministres ñu ni diw nommé nañ ko diw nommé nañ ko nàngam ñu ne ah kii kat président reconnaître na ko mais pouvoir état géej la da nga nekk yoof di napp ki nekk get ndar di napp kii nekk joal faju di napp kenn ku nekk di nga napp am loo yóbbu sa kër te kenn du giseeg sa morom kenn du déggoog sa morom ñaareel ba kilifa day doon ndawalu guddi ku làmb rek defe ni yow rek la fekk la nga daj sa morom daj na lu ko ñetteel ba ñun man personnellement ak ñu mel ni man bu doon dañuy ànd ak Macky Sall pour ñu ko nommer ñu bala ñu ànd ak moom dañ koy négocier carte sur table parce que lu ñu mënoon def la waaye defuñu ko ndax damay wax toujours ku war ñay ba wàcc loo war a du la saf man lu ma Macky Sall mën a jox lu ma jaaxal lan Abdoulaye Wade jox na ma ci àddina loo xam dootuma ko fàtte ci àddina tëdduma woon nag di nelaw ñu fekk ma ci lal yee ma jox ma ko. Mhm. may fàttali ki ni 1976 maanaam ñoo ànd ñu def élection dans la région de Diourbel et de Louga. ñu gagné ñaari commune tala muy Ndondol ak Gàdd. 1978 mhm. chose ak yeneen ak yeneen en lañ ma fal ma ne ko responsable régional des jeunes du Thiès du PDS booba ñii fi yëngu ñëpp déggoo ñu wax ci PDS du dëgg mhm. kon nag kenn fekkul nit mu tëdd di nelaw ñu yee ko fal ko mhm. waaye fañ ma fale manoon nañ fa fal rek sama yeneen morom mais man la tànn jox ma responsabilité mhm. may ma loo nga xam ne tey àddina yëpp xam nañ ko amul benn dëkk bu may taxaw dans le te aw ma fa cër aw ma fa responsabilité aw ma fa connexion ginnaaw yàlla Abdoulaye Wade moo ma ko jox d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Serigne Mbacké Ndiaye dañ doon euh, commencé rek ci kuréel yi nga xamante ni yow yaa ko. yaa ko waaw waaw yaa ko <laughs> yaa ko jiite non dinañ dinañ si dikkaat léegi nag ñu wax ci li nga xamante ni tamit actualité la. muy li xew ci diwaanu Mali. Mhm. muy coup d'état boo nga xamante ni tey militaires yi def nañu ko. teg loxo ki nga xam ne mooy njiitu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta ba léegi ni teggeeguñ ko loxoom li xew Mali. lu la bett la wala bett la monsieur le ministre. bettu ma. lu tax bett la. Euh, bettu ma te pour ma dugg ci loolu. ni ko sa nattaango yi defee yépp ci presse bi. occasion aussi parce que réew mi dañuy def ku def lu jalgat yi ñu attaqué la. siiwal la weteet la reeteet la waaye ku def lu baax duñ ko wax mais tey gis naa ne ci presse bi ñu gën bari boo xoolee rafet lu ñu taxawaay bi président Macky Sall am ci réunion CEDEAO bi am bërki démb ndax am na chef d'état yoo nga xam d'après ni ñu ko waxee. la ñu bëggoon a def bu ñu ko ba defoon saafara jujur jàngoro la. dëgg parce que Mali tey toll na foo nga xam ne te ñun ñu ak Mali dafa yàgg. boo demee par exemple ñun tey à Thiès. ñun rek ñoo am benn koñ boo nga xam ne Mbambara la tudd. lu tax mu tudd Mbambara. Mhm. Maliens yi bañ doon jógee Mali temps Dakar Niger. di ñëw Thiès jaxasoo nañu ba mhm. koñ boobu boo fa duggee tey doo xam ne ñan ñooy Sénégal ak ñan ñooy Malien mhm. donc Sénégal ak Mali seen digg dafa yàgg mhm. kon dafa am benn proximité géographique bu am ak bu am ak historique historique culturel lu ci bëree bëri ba ak économique social daf ñu daj daf ñu daj tey buñ ne woon na na na Maliens yi nekk Sénégal yëpp génn dina bari ñuy ñëw ci taxawaayu président Macky Sall dina ñëw a bettu la ah, laa du li tax may démarrer loolu moo tax loolu rek laa la bëggoon préciser li tax bettu ma mooy gis nañ ni Mali taxawaay bi jekkadi na ba gouvernement ba fa nekk daanaka mocc réew lay gouverner mocc réew mi gouverner wu ko te loola cosaan li dafa rëj cosaan li dafa sori ma nga jóge Libye boobu ñu egg si fii donc gouvernement bu demee ba egg foofu nit ki taxaw ci mbedd mi ajjuma ju jot ñu génn ci mbedd mi di def ay manifestations yoo nga xam ne état bi mënu ci dara loola man jàpp naa ne sax li xew ni Mali tey li tubaab di wax moindre mal maanaam moo tane leneen loo nga xam mënul dafa xew parce que leneen fu mën a xaw mooy lan mooy pression bi demee noo nga xam ni rayante mën na fa am deret mën na tuuru jihadistes yi mën nañu jël pouvoir bi jihadistes yi mënul nañ jël pouvoir bi te bu boobaa Sénégal mooy nekk réew moo dañ koy menacer xam nga léeg ma dégg ñu naan France dégage. Mhm. muy lu am solo lu ñuy wax. Mhm. ma ne leen je suis d'accord wax leen France dégage mais bu ngeen dégager France kan ngeen fiy teg parce que lu nit gàtt-gàtt xel lu nit ñàkk-ñàkk xam-xam xam na ni bu français yi nekkuloon Mali tey jihadistes yi bu ñu duggul biir Sénégal it ñi ngi fii aux frontières du Sénégal mmh. kon loolu dafa nekk position boo nga xam ni bëgg nguur bëgg contre nit bëgg ko la àndal bëgg ko ànd ak yow warul tax ngay défendre position nga xam ni ëllëg ak bi dafay taal ab dëkk mu fàttali ma benn góor goo nga xam ni ay jamono dafa mësoon di waxtaan ak sengoor mhm. ni ko ah président opposition baa ngi lay attaqué de Senghor ni ko kanak kan la mënu ko Cheikh Anta Diop maître Babacar Niang Abdoulaye Wade Majmoud Diop. Mhm. Senghor ni ko mais vous constaterez que à chacun ses français et sa française dégg nga wax. Mhm. ñooñu kenn ku ci nekk. am nga say xaritu français. am nga sa soxna française. dëgg la kon ñi taxaw tey naan France dégage nañ ma wax bu ñu dégagé France kan la ñuy teg. donc situation bu ma am Mali moo taxoon man ma jàpp ni te bul fàtt ni CEDEAO dem nañ fa def fa benn médiation entre gouvernement bi ak opposition. ñenn ah, ñu jàpp ne dañoo lajj. ju ñu jàpp ne dañoo laj parce que jubóowuñu. Mhm. donc lajj nga ko jàppee. absolument lajj laa ko jàppee. ok parce que bu fekkee ni CEDEAO dem na fa bëgg teg président état bi gouvernement bi bëgg a teg opposition pour waxtaan ak ñoom mënuñu fexe ba ñu bokk waxtaan ba ñooñu bàyyi leen fa dem. Mhm. ça veut loola fa muy mujj du baax. Mhm. fan la doon mujj. Mhm. mooy li ñuy wax benn mi ngi mel ni essence boo teg kos bantu almet loolu rek moo ci desoon. Mhm. mu ni jëppet kon loolu bu amee situation bii créé wu tey xam ni yàlla nga ñuy suturaal ba fi ñu toog di wax. bakkan tuur bakkan tëddu ci. deret tuuruwul. naam am na ñoo nga xam ne jàpp nañ leen. te ñooñu jàpp dañ leen di bàyyi de toute façon ci ay négociation lay mujj. kon man bokk naa ci ñi gëm ni li yenn chef de yi doon proposé. waaw naan nañu jël armée dem pour rétablir l'ordre mhm. musiba lay doon mhm. peuple ba duñ ko nangu mbaa ba ñu ci bari duñ ko nangu mhm. ñi jël pouvoir ba duñ ko nangu parce que buñ ko nangoo ñoom seen bopp ci kaso ba la jël uh-huh. ensuite ah, waaw xam nga man nag bu ñu ne dama ciy xaw a maandu bari na daal ñu ànd ak ñoom. waaw mais est-ce mais xam nga sànq yow yaa wax ne. dem nañ ba nga xam ne mën nañoo wax ne nguur gi nekkatul ci loxoy Ibrahima Boubacar Keïta. absolument ci peuple bi la yor ñu ëpp ci askan bi. waaw donc xam nga mënu wax ñu ëpp. mënu ma wax lu ëpp dama lay jox exemple xam nga wax naa la fi kaaw 23 juin. Mhm. xam nga 23 juin teg nañ ci gouvernement pression boo ko Abdoulaye kenn mësu ko dégg. Mhm. et pourtant du woon majorité sénégalais yi. Mhm. ndax boo gisee li nekkoon place de euh, buntu place Thatcher à la fële euh, assemblée nationale c' est vrai que mbooloo la. waaye boo ko nattee ci 16 millions de sénégalais du majorité. moo tax damay def attention pour wax peuple li wóor mooy. bari na mbooloo moo nga xam ni ñoom la ñu gis ci mbedd mi ñooñu militaire la ñu àndal. kon bu fekkee ni militaires yi dañuy jël pouvoir bi ba pare ñu ñëw ni leen delloo leen pouvoir bi ñu delloo ko ban intérêt la ñu amoon di ko jële donc man jàpp naa ne même chef d'état yooyu ko doon wax sax. waa CEDEAO waa CEDEAO yi ko doon wax sax vraiment ak matadi la parce que nit du jaay bakkanam jël pouvoir ba pare nga ñëw ni ko demal delloo pouvoir on du ko am di ko delloo. donc encore une fois gëm naa ne li xew Mali neexul. baaxul mais moo tane loo xam ne waroon na mën a am. kon daal am na ñuy wax na coup d'état la. ñoo xamante ni ñoom rafetlu nañ ko. en tout cas moo tane li naroon a am ci sama gis-gis. d'accord mais est-ce que euh, Ibrahima Boubacar Keïta comme yow par exemple ni nga ko waxee nga ne yow li xew bett la. Mhm. manifestation yooyu noonu est-ce que euh, Ibrahima Boubacar Keïta ak ñi mu àndaloon est que nattoon nañ. détermination wala taxawaay wala li nga xamante ni tey euh, askan wi ñoom bëggoon nañ ko est-ce que nattoon nañ réellement kane lii xew nii war naa mën a xew ci réew moom waa dafa mel ni nattuñu ko xam nga xam nga li gën a bon ci gouvernement. ci mhm. kilifa laa gu mënti doon. Mhm. ñi la wër buñ la dul wax dëgg. wóoruma ndax noonu la demee mais dama jàpp ni situation bi amoon Mali président ba ci boppam ak doomam. Mhm. parce que dégg nga même ci manifestation ñu wax ni li yokk mbir mi mooy taxawaayu doomu président la bu tudd Karim Karim Keita. ñu gis ay vidéo yoo nga xam ne mi ngi mi mi ngi daw ci réseaux sociaux yoo nga xam ne kenn rafetlu wu ko donc bu fekkoon ni xëy na parce que bul fàtte ne aussi opposition bi am na ay jamono ñu def ay proposition jox ko président bi pour mu waxtaan ceeg ñoom nanguwul woon waxtaan a ñoom ñu dem ba ay jamono ñu ni ko léegi bàyyi ñun ñu tànn premier ministre te yow nga continuer nekk président ñu gérer réew mi nanguwul a waxtaan ak ñoom kon ñaari étape yooyu yëpp xëy na bu doon déglu na ci benn mun na am ne fii ñu le ñu egg tey duñ fa egg. mais bu fekkee ne wax nañ ko dégluwul. xëy na am na lu mu yaakaaroon loo nga xam ni loola nax na ko. d'accord mais euh, CEDEAO gi nga xamante ni tey yow jàpp nga ne dañoo lajj si euh, li nga xamante ni mooy jafe yi nga xam ne moo am euh, moo am Mali ak ñoom proposition yi nga xamante ni moom lañ moom nga wax te yow nga jàpp ne loolu du stratégie bu baax maanaam mooy dem jël nguur ga. Mhm. CEDEAO tey ñi nga xamante ni ñoo si bokk di ay chef d'État. dafa am ñu bari dañoo jàpp ne ñi si des euh, maanaam nekkuñu ñoo xamante ne ñu légitime lañ ñoo xam ne daal na ñoo wax askanu Mali lu ñu dégg maanaam bëri na ci ay chef d'état yoo xamante ni tey euh, li ñuy li nga xam ne moom la peuple malien di reproché Ibrahima Boubacar Keïta boo demoon seen réew tey lu mel noonu lañ leen di reproché est-ce que biir CEDEAO ci boppam ñoo amatul crédibilité bi wala ñoo amatul dayo bi lan moo ci sa xalaat. li ci sama xalaat mooy président bu ci nekk ci ñooñu nga wax lim ñi ñëpp sa réew moo la fal. sa réew bu la bëggee dindi dindi la gis nga peuple bu décidé kenn mënu ko opposé ko koo dégg ñu daan kii kii dugg na fi génn fi si c'est parce que peuple bi décidé wuñu saa bu peuple bi décidé nga jóge fa loolu awma ci man dut ci question boobu ndax dund naa ko fu peuple bi décidé tey lay jeex bisu keroog lay jeex kon tant que bi décidé wul ni tey lay jeex parce que ñi nga wax noonu ñëpp dañu def ay élection gañe ñoom ñëpp mhm. donc tant que peuple bi décidé wul ni tey nga fay jóge man amuma droit man en tant que sénégalais ni président ba nekk Guinée amul légitimité wala ka nekk Côte d'Ivoire amu ko wala keneen amu ko alors que kooku peuple moo ko fal donc jusqu'à présent mën na CEDEAO mën nañu def loo xam ne nit mën na ci bañ a d'accord ak ñoom mais loolu jotewul dara ak taxaw de amuñu légitimité mieux ñun dañu war a ñaan yàlla CEDEAO am légitimité dañu war a ñaan yàlla Union africaine am légitimité dañu war a ñaan yàlla Nations unies am légitimité parce que addina bi buy dox te amul kenn ko man ni nit ñi amul kenn ku mën a taxaw ni bu leen def lii su ngeen ko defee lii am bu amatul ci àddina mais àddina bi day mel ni géej goo nga xam ne ku ëpp sa morom doole mais mais mais euh, euh, Serigne Mbacké Ndiaye xam nga tey euh, bu ñu d'accord ci kawi kàddu ba tënku ci benn kuréel kuréel boobu lépp lu mu santaane dañ ko war a jëfee tey CEDEAO tey boo xoolee sant na ay njiitu réew yu baree bari yoo xamante ni bokk nañ si diggal leen loo xamante ni defuñu ko ndax keroog seen seen euh, seen sommet extraordinaire bi ñu doon def président Macky Sall sax wax na ko si ci xibaar yi ñu jot ko ne wax leen na leen pour ñuy wàccoo ak euh, li nga xamante ni tey moom la moom la kuréel gi di wax wala moom la kuréel gi di santaane ñenn ñi sax jàpp nañ ne bu dee violé loolu nga xamante ni mooy protocole boobu di jóge ci CEDEAO moom euh, kenn jiituwu ko si loolu tamit kuréel googu nan lay nekkee kuréel kuréel gu légitime. waaw mais xam nga xam nga légitimité parce que baat bu ñuy wax aussi am lu muy tekki. baat bi dafa am lu mu tekki maanaam kii légitime tey bu ñu nee président bi légitime na loolu moo tekki ni ñi ëpp ca askan wa dañu ànd ak moom jox ko seen baat loolu mooy légitimité. Mhm. maintenant président boobu am légitimité mën na jël décision bu nga xam ne yow doo ca ànd. doon ni parce que am na légitimité lu mu def ànd nga ci. non ci biir kuréel gi. moom laa la wax CEDEAO. mën na am légitimité. te lu te du lu mu décider. man par exemple du lu mu décidé ma rafetlu ko wala yow lumu mu décidé nga lu ko ñaareel ba bu ñu mënee président Macky Sall mi mi mi euh, wax loolu moo jëkk a violé loolu bëggoon naa xam ci lan la président Macky Sall violé ay décision nga xam décision CEDEAO la CEDEAO tey sant na ko ci mbiru euh, mbiru xalifa Sall Khalifa Sall yóbbu na euh, Sénégal ci CEDEAO xalifa Sall am ndam foofu waaw mais xam nga loolu aussi ñu ngi dugg ci beneen débat bu gën a sore xam nga mu am importance. Mhm. mooy bu CEDEAO di jël décision. fekk na ni aussi am na ay charte ay loi ay ay règlement une constitution bu nga xam ni tribunaux yi jël décision ci Sénégal ci loolu lañ sukkandiku te boobu ba léegi fii ñu toog di wax ba fi ñu toog ma di wax ma ak yow. Mhm. mu am benn débat boo nga xam ni juristes yi ci seen bopp d'accord guñ ci. mooy yenn institution yoo nga xam ne am na est-ce que bu jëlee décision. est-ce que bu jëlee décision beneen institution internationale mën na ko dindi wala mënu ko dindi débat la boo nga xam ba léegi ñoom ñi nga xam ay juriste la ñu d'accord guñ ci entre avocat entre magistrat entre professeur d'université ainsi de suite constitutionnaliste ainsi de suite ba léegi d'accord guñ ci loolu. donc débat boobu xam ñoom mënuñu d'accord. d'accord guñ ci. Mhm. man mënu ma ko taxaw. d'accord mais li nga xamante ni tey euh, moom moo xew Mali euh, tey jii si samedi ji. Euh, CEDEAO yóbbu yónnee yóbbu na fa euh, seen médiateur bi ma nga fi euh, ancien président bu bu Nigéria. John Lagoud. yow lan ngay xaar ci waa CEDEAO ak lan nga jàpp ne mooy solution bi. non xam nga fi mu nekk solution bi parce que dafa am ñaari mbir yu bokkul. Mm-hmm. dañu retourner ci con institution yi. à l'ordre constitutionnel maanaam président assemblée nationale leneen ak leneen am fa nam fa amee woon. Mm-hmm. loolu wuute na ak. falaat leen delloo leen président ba fa nekkoon pouvoir bi man jàpp naa ne président ba fa nekk delloo pouvoir bi mënta am moom laa gëm man mënta am lan moo mën a am tey mooy pouvoir bi ñuy taxawal du ñu tudd gouvernement de transition mooy gouvernement néggandiku gouvernement boobu CEDEAO na ko jàppale mu taxaw organiser ay élection muy élection présidentielle élection législative élection municipale assemblée ba continuer di dox président de la République mën a doxal gouvernement bi mën a doxal je pense que loolu la ñu mënee dimbalee tey gouvernement malien mën nañu mën a dimbalee le peuple malien mais du ay sanctions du interdit leen ay institutions parce que nit ki boo ko teree mu ñëw bokk ci yeneen institution mais da koy libérer lu ko neex def bu boobaa sax am na xëy na ñeneen ñoo nga xam parce que olof dañuy ku gisul sa soppe wax ak say bañe mhm. bu fekkee ni tey CEDEAO nee yéen dootu leen ñëw du ngeen ñëw ci suñu réunion Union africaine ni leen du ngeen ñëw ci suñu réunion mais am na jaaykatu peinture joon yu taxaw ci ruq bi loolu rek la ñu yàkkamti pour ñoom ñu dem Roufo ak Mali continuer déstabiliser la sous kon jàpp naa ne xel mu rafet mooy nañu uuf tey maliens yi xel mu rafet mooy nañu xelal pouvoir bi nekk tey au Mali te ñun teguñu ko fa mënuñu ko fa jëlee CEDEAO tegu ko fa mënu ko fa jëlee nañu leen xelal nañu leen encadrer nañu leen dooleel nañ leen jàppale sur tous les plans ba nga xam ne Mali jafe-jafe yi mu nekk nii tey dina wàññeeku. d'accord mais ay sanctions. Mhm. du mooy régler problème mais euh, ñi nga xamante ni ñooy militaires yi ñoom euh, nee nañu danañu joxe li nga xamante ni maanaam mooy mooy réew mi euh, jox ko civil yi mais est-ce que civil yi ak réewu Mali ni mu nga xamante ni ni la nekkee si ay jafe rawatina ci mbirum koom ak Covid bi ni mu mel ak mbirum insécurité bi nga xamante ni moo fa nekk. est-ce que militaires yi mën nañu ko jël yëkkati ko jox ko benn civil boo xamante ni tey mbir mi bett na ko ban feuille de route si lay mën a teg réew ma est-ce que nekk na loo xamante ni rek militaire yi mën nañoo jël réew mi noonu rek euh, jébbal ko civil yi sans autant ko ñu dem au moins euh, benn at wala lu topp ndax jàpp nga ne Mali am na ko pare koo xamante ni jàpp nga ne tey am na benn feuille de route boo xam ne bu ñu ko joxoon euh, mu teg si réew mi doxal ko. non ku pare am na fa du tudd tur nag mais ku pare am na fa ndax ku dem ba nekk élection candidat élection présidentielle. mais mais ka fa doon nekk topp ci nekkatu fa. waaw non du moom rek fa fa nekk ah. bari na bari nañu. comme kan parce bari nañu. non comme kan monsieur du ma tudd tur kenn mais dama ni. non nee nga am na ko doon dem élection. non dañu bëgg xam kan la rek ne xam nga demoon nañu élection présidentielle. waaw xam nga du woon benn candidat du ñaar du ñett. Mhm. ma ku dem bay doon candidat élection présidentielle. c'est parce que pare nga pour assumer charge du président la République muy benn. Mhm. ñaareel ba mbir mi du mbiru benn nit maanaam. benn nit bu ñu jëloon tey ne la am doxalal réew ma ak loo am am xam-xam doo dem mbiru Mali xam nga lu mu laaj tey. Mhm. waxtaan wu yaatu. Mhm. entre pouvoir bi fa nekkoon. parce que ñooñu dafa am lu ñu fa tekki muy pouvoir ki nga xam moom lañ fi jëlee nii ñamu ànd dafa am lu ñu fa tekki muy opposition bi muy ñi nga xam ne société civile lañu bokk muy militaires yi nga xam ne ñoo yore pouvoir bi ñoo ñëpp war nañu mën a waxtaan tey ba tënk benn. feuille de comme ni nga ko waxee léegi. Mhm. ni kat nañu def nii ak nii nii la ñuy organiser ñii nañu yore gouvernement bi mën nañu doxal nangami weer wala nangami at pour dem ci élection ainsi de mais benn nit boo nga xam dañ day jël cundum jox la ni la doxalal pour changer situation amul fa amul foofu amul feneen li am tey mooy il faut que waxtaan am entre maliens ñu xam ne kenn ku nekk njariñu réew mi moo la tax a jóg ñu mën a taxawal benn feuille de route boo nga xam ñëpp dañ ci dugal seen loxo. bu ko defee CEDEAO jàppale leen Sénégal jiitu ci ñi leen di jàppale parce que intérêt bi ñu ci am keneen amu ko ci. d'accord mais euh, mais CEDEAO comme ni nga ko junjee woon sànq euh, bi ma la laajee question bi ci Mali ñoom euh, tëjal Mali gi nga xamante ni tëjal nañ ko Mali euh, frontières yi keroog président Macky Sall ci li ñu liir ci presse bi mooy mën nañoo wax ne sauvé na Mali ci benn côté. kane lu jëm ci wàllum dund wàllum euh, wàllum faju wàllum produit pétrolier ñu bàyyi ko muy dugg Mali euh, ak génn ak génn Mali mhm. mais CEDEAO li ñu def Mali ak li ñu taxaw dafa mel ni ñoom dañu bëgg a sanctionner euh, peuple malien te am na ci loo xamante ni yoonu peuple malien nekku ci mhm. ndax yow sànq yaa ngi wax ne ñi ëpp ci malien yi amaana ànduñu maanaam génnuñu woon ci mbedd mi. Mhm. ndax xam nga génn moo gën a siiw. wax moo gën a siiw. léegi euh, tëjal Mali googu ñu bëgg a tëjal Mali san loolu est-ce que du sanction boo bëggee leen a sanctionné est-ce que du peuple bi ngay sanctionné te ñoom seen yoon nekku ci. mais dëgg la loolu koy wax naa ko léegi moo tax man la du solution solution bi du loolu. du tëj frontière. déedéet maanaam tëj frontière sax mën na nekk xam nga lu tëj frontière mooy fexe ba defkatu ñaawteef du jóge bitim réew. dugg ci réew mi def fa lu du doon wala nit du def lu dul doon ci biir réew mi daw jaar frontière yi génn bitim réew loolu man d'accord naa ci. Mhm. waaye bu ñu ni Mali du ñu leen reconnaître maanaam gouvernement bu fu mën di taxaw tey parce que CEDEAO du mooy fal ay gouvernement Macky Sall falul ko ne Mali Alassane Ouattara falul ko ne Mali ainsi de suite ku nekk yaa xam ni nga tojee sa boppu jarax bu fekkee ne changement am na au Mali nañu nangu kilifa ya fa nekk tey bu réunion CEDEAO waroon am bu amoon tey. ñu nangu kilifa googu ñëw. ci mhm. réunion CEDEAO. même bu dee ci armée même bu ci armée bi la bokk. même bu dee ci at parce que loolu moo leen di permettre sax. Mhm. nga mën a toog wax ak moom. ni ko sëñ bi tey ñu def nii nañ def nii nañ def nii. Mhm. mu xam ne lii mooy yoonu baax la. mais su fekkee ne nga ko waxuma ak yow. du ma wax ak yow du ma toog ak yow mais bu boobaa mu def lu ko neex te doo ci mën dara. d' accord euh, monsieur le ministre euh, dafa am ñoo xamante ni ñoo ngi koy romanaat njortu ne loxob France dafa nekk ci ginnaaw am na ñu koy tuumaal France ci li xew Mali ndax yow jàppoo loolu. yàlla nay loolu. yàlla nay loolu xam nga xam ne yàlla nay loolu wax naa la ko ci njàlbeen bëy bu àndul ak bëy yi ànd ak cere yi maanaam bëy hmm. bu ànd ak bëy yi hmm. ànd ak cere yi maanaam man France dugal loxoom ci Mali ba situation ba demee nii mu demee tey hmm. moo ma gënal ay samba booy dugal seen loxo ci Mali jël pouvoir bi continuer déstabiliser ko ba ñëw déstabiliser Sénégal bu dee loolu am na moo ma gënal man ay samba booy ma répété ko ñëw déstabiliser Mali dugg déstabiliser biir Sénégal parce que attention boo xoolee suu région bi ñu nekk. Mhm. yàlla na yàgg te wéy Sénégal rek moo ci muccandi yàllaa ngi ñuy sutural suñu force de sécurité et de défense muy police gendarmerie armée douane même bu eaux et forêt di liggéey bu mucc ayib te su fekkoon ni bis bu yàlla sàkk ñoom li ñuy gis ci ñoo nga xam ne dañuy jéem a def ay ñaawteef ci dem ñu den arrêté. di leen jàpp di leen tëj ci kaso yi di leen jàpp ci armée yoo xam sénégalais yëguñu ko soo ko yëgoon yow wala sénégalais yëg ko xëy na sax dootu ñemee génn ci bedd bi kon nag ñu tuumaal France France fexe ba lii am Mali demee nii deret tuurul jaasi génnul mbaram bal tàkkul waaw ah. moo ma gënal man daa daa ay samba boo ñëw mais xam nga monsieur le ministre li nga xamante ni tey armée bi def nañ ko euh, maanaam dafa nekk benn stratégie boo xamante ni Euh, xam nga yow yaa ngi tuumal France ñeneen a ngi tuumal Russie. waaw parce que nee nañu pouvoir bi fa nekk tey ambassadeur Russie la jëkk recevoir. Mhm. nee nañu militaires yi ko def Russie lañ leen formé. Mhm. donc tu vois que. xam nga militaires yi mhm. soo xoolee ñoom. Euh, dafa am benn stratégie boo xamante ne dañ koo def muy ñëwuñu rek foqarte nguur gi. teg loxo Ibrahima Boubacar Keïta dañ ko jàpp jàpp euh, premier ministre am. wax ka na ko wax ka na avant muy démissionné dañ ne ko tasal assemblée nationale ndax xam nañ ne su démissionné woon rek assemblée nationale mën naa jël réew ma te bu mhm. boobaa kon ñoom du nekk ci dëgg mhm. constitutionnellement parlant mhm. ñu ne ko tasal assemblée nationale mu tas ko ñu ne ko tasal gouvernement mu tas gouvernement ñu doog ko wax démissionnel mu doog a mu mel ni li ñu nekk nii ñoom sax ñoo ngi ci yoon euh, loolu non stratégie boobu te gisuñu euh, baltaat gisuñu nit ñi dee loolu tamit moo xaw a jaaxal nit ñi ne est-ce que lii amul vraiment loo xamante ni ma ngi ci ma ngi. xam nga ñi muy jaaxal mooy ñan. ñi nga xam ni na ma ko yàlla baal ci waxin wi dañoo doyadi. Mhm. c'est-à-dire que loolu mooy yaakaar ni yow mi civil yaa ëpp xam-xam militaire bi yow mi civil yaa gën a xam lu xew militaire bi te loolu erreur magatu ko lépp lu civil man lépp lu civil man mhm. militaire man na ko ba man du ko ëpp. xam nga lu tax. li nga jànge jàng na ko école yi ngeen jàng lañ jàngee ñoom ñu boole ci formation boo amul. kon ñoom bu ñu demee ba gis ni seen réew parce que li xew Mali. xam nga du benn fan du ñaari fan du ñetti fan crise bi yàgg na fa. kon ñi nga xam ni Mali ñor na leen ñoom ñu nekk ay dirigeants maliens nekk responsable à tous les niveaux jaadu woon na. ñoom ñu toog réfléchir ni nan lañ mën a def pour changer situation bi effectivement li nga wax dëgg la li am foofu mhm. du loo nga xam ne dañu xëy xëy rek mhm, def ko def ko da ngay xam ne si mûrement réfléchi mhm. ay kàngam ñoo toog xalaat teg stratégie boo nga xam ni yàlla suutural naan ba fii ñu toog di waxee bal tàkkul jaasi génnul mbaram mais loolu teg ko ci yoon aussi loolu nag bu taxee ñu bëgg a yaakaar ni kenn mais nañu respecté suñu bopp waay nañu gëm suñu bopp Mm-hmm. nañu gëm sa bopp mais mais attention non uh-huh. c'est important. Uh-huh. gëm sa bopp mooy xam ni yow en tant que sénégalais en tant que malien en tant que gambien man nga lu français bi mënul. xam nga lu français bi mënul mën nga lu américain bi mënul. Uh-huh. mais faut pas que bu ñu defee dara rek ñu war a toog ni ah lii français yi ñoo parce que affaire bi ni mu jubee français yi ñoo ko sant. xam nga loolu dafa bari ci suñu réew mi da ngay gis sax bu nit di respecté rendez-vous ñu ah moom tubaab la day respecté rendez-vous. suñu cosaan suñu aada. ñun xamuñu woon signature kaddu la xam nit ki bu joxe kaddam dañ ne boo joxe sa kaddu yeewu nga sa bopp d' accord euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye moom la ñu invité tey euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mais monsieur le ministre ñenn ñi dañoo jàpp ne ñi nga xamante ni tey ñooy armée armée malienne bi maanaam dafa arbitre diggante peuple bi ak ñu yore woon réew mi yow lan moo ci sa gisin ci loolu ah oui mën na nekk parce que bu ñu gisee ni ñi ngi xëccoo waaw kee ngi jëm fii kee ngi jëm fii. te musiba naroon mënoon na am musiba a am. ñoom ñu dox ci diggante bi àtte leen je pense que jaadu na. Mhm. jaadu na d' accord loolu lañ koy doyee. d' accord léegi euh, suñu la mujj laaj bi ci ci lu jëm ci loolu euh, gis nañ euh, li nga xamante ni mooy insécurité bi nga xamante ni maanaam am na am na Mali ndax yow njortoo ne ak groupe ak terroristes yi ni nga xamante ni moom la ñu fa moom la ñu fa bëree. ndax jàppoo ne armée bi bu ñu talee jéem a défendre seen bopp est-ce que jàpp nga ne armée bi psychologiquement tamit danañ bàyyi waale xel attaque euh, yi nga xamante ni terroriste yi mën nañ ko def jamono ju nekk. segem yow mi toog fii ci Ndakaaru lekk sa ceebu jën bu macha allah naan sa attaque ndox mu sedd toog ci sa rajo di animé. Uh-huh. yaa ko mën a xalaat. waxuma la ñoom ñu nekk ca Mali. d'accord xam di ko dund. Uh-huh. donc loolu encore day dellu si ki li ma waxoon rek. Uh-huh. nañ joxante cër. parce que xalaat sax ni armée malienne du xalaat loolu sax. erreur la erreur la léegi euh, ñi nga xam ne jàpp nañ ne li xew Mali mën naa xew ci yeneen réew la ñu wax Mali euh, Guinée ak euh, Côte d'Ivoire am nañu sax wax Sénégal ndax jàpp nga ne yow li xew Mali ak peuple bi noonu ñu jugee woon mën naa xew Sénégal gi sunu senegal sunu Sénégal njaay wala sunu Sénégal jóob gi xam nga yow sax gëmoo xam nga lu tax. ah lu tax gëmoo ko <laughs> moom laa lay wax xam nga fi ngay wax da nga wër wëraan man xamoon naa fi nga jëm si nga wër wëraan jaar Guinée jaar Côte d'Ivoire ni euh, kii noonu hésité daal di muuñ soog ni Sénégal <laughs> gis nga nit bu nekkee cim réew dafay ñaan jàmm. mais dégg nga li ma la wax tamit dégg baax li nga wax. mais dégg ko ci presse dégg naa ko bien sûr. Uh-huh. dafay ñaan jàmm. démb damay waxtaan ak sama doom ñuy waxtaan ban leen may yéen lu tax réew mi fi mu toll ak coow li li mu bari bari ak tout ça nawet bi déggu leen benn baykat bu wax du ngeen posé question boobu. Mhm. ñi nga dégg ñuy kaas ñëpp mooy ñi nekk seen jàmm. Mhm. ñi nga xam ni ña nga compte bancaire bu ñu xëyee ci restaurant yi la ñuy yendu ci hôtel yi la ñuy fanaan. toog si rajo yi yàlla mane na leen gan ñu toog seen salon di bind wala ñu toog ci rajo yi di wax. problème yëpp ñoo ñoo ko dugal ci bopp sénégalais yi. alors que sénégalais am na leneen lu ñu tal ndax am nañ leneen lu ñu dund boo dundee ci réew moo nga xam ne malgré jafe-jafe yi dama wax toujours di ma réew mi dafa metti man ñoo ko mettil xam nañ ko mettile mhm. tabaski lañ jógee bërki démb muy yow muy man muy keneen kenn ci deful loo man mhm. ñaata milliards la ñu dépensé ci tabaski googu oto boo wàcc États-Unis yàlla na na yokk li may wax nii dama ko ci kontaan. Mhm. oto bu wàcc États-Unis wala France tey une semaine après nga gis ko Dakar tey boo doon tukki agence de voyage boo laaj mun la place amul hôtel boo dem bu fees restaurant boo dem mu fees on va ma diir que loolu benn classe ñoo koy def d'accord jëlal ajjuma samedi dimanche ñaata milliards la ñuy dépensé ngénte cee dëj ñaata milliards la ñuy dépensé ci conférence cant màggal màggal gàmmu mhm. jigéen ju la romb di dem bu takkul or mi ngi ak cinq cent mille francs ci kawam góor ñi même chose alors réew mu mel noonu nga bëgg di dund ci loolu nawet bi ñu génn. mooy campagne arachide bi jàll daaw. cent dix milliards chinois yi dugal nañ ko ci monde rural. cent dix milliards. cent milliards yi dañ ko jënde jiw. dix milliards yi manutention la. transporteurs yi ñu doon yanu ñu neexal ainsi de suite cent dix milliards waxuma li état bi jënd waxuma yenn huiliers li ñu jënd ci biir réew mi. boo xoolee ci côté boo ko seet. nga gis ne am na ay changements yu am ci réew mi malgré que nag difficultés yi bari mm-hmm. mais may fàtt rek li ma sama góor gu baax ka daan wax xam nga difficulté kañ ngay jeex bis bu ñu dee dem dem àjjana. lu jàpp en attendant lu tax nga ne jàpp ne li xew si réew yooyu mu Mali. mu loolu laa lay wax si nii. Mhm. li Mali développement bi ci loolu laay jëm si. maanaam mhm. ni réew mi amee jàmm. ci loolu laay jëm si. parce jàmm dafa am koy indi. Mhm. donc boo defee loolu lépp nga dem ci élection 2012 ñu fal njiit ni kii la ñu fal ñëpp d'accord ci ñu jóge fa delluwaat ci élection 2019 ba ñuy dem ci élection ya ñi ma lay wax rek ñaa yooyu ma lay wax ni dañu bien. Euh, macha allah dara manqué wu leen mais il faut que nag ñuy animer le débat politique am na ñoo nga xam ni ñu animer le débat politique ci la seen salaire nekk ah hmm. am na ñoo nga xam ni ña leen di yëngatuloo parce que il faut que ñun ñu poser wu les bonnes questions muy man muy sama morom kenn ku ngeen ci gis muy jóg di dem di dawal oto bu rafet. di mën ay activité di congrès di def leneen nag leneen war ngeen posé wu la question kii lu may liggéey lan lay liggéey kii fu jëlee xaalis bi muy defee nangam nangam boo posé woo question yi bu trouver réponse bi di nga xam lu tax ñuy animer le débat politique mais débat politique boobu ñuy animer le Sénégalais des profondeurs yëgu ko bokku ci mm-hmm. yëgu ko bokk ci ñàkk koo yëg ñàkk cee bokk moo tax malgré la ñuy wax avant élection présidentielle deux bi ñëwee ci élection ñu réy leen Macky Sall à cinquante huit pour cent le premier tour donc réew mu am stabilité bu mel noonu nga gis ne am na couche yoo nga xam tudduma leen muy kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk ay régulateurs sociaux nekk ay stabilisateur du pays xam nga ñu sax tudduma leen dama leen di jëlale mm-hmm. waaru biir néeg la mm-hmm. donc réew moo nga xam ne mi ngi doxee noonu institution yi di fonctionner normalement assemblée nationale la ngay réunion maire yaa ngi fonctionner gouvernement baa ngi fonctionner moo xam nag d'accord nañu ak bu la d'accorduñ ci la ñuy def mais en tous les cas mi ngi fonctionner réew moomu nit waroo mën a toog xalaat situation am jël di fa am mm-hmm. nga am une armée républicaine boo xam ne xam lan mooy république mais pourtant li nga wax ni lépp am na Mali bu dee kilifa diine yi am na Mali bu dee assemblée bu doon dox ma nga fa doon dox bu dee président buy jiite réew ma nga doon jiiteem réew bu dee président buñ fal démocratiquement fal nañ ko ko démocratiquement mu doon jiiteem réew même pas deux ans trois ans lii xew-xew fa. bokkul xam lu tax amu fa. Mhm. benn crise wax nga ko ci njëlbéen crise sécuritaire bi am Mali moom laa introduire. Mhm. dem na ba tey territoire malien boo ko divisé ñett ñaari gouvernement bi contrôlé wu ko muy benn. loola indi ay difficulté difficulté bi ci njëkk xam nga dégg nga euh, ma euh, euh, kii dumt ammoniac bu ñuy wax ne xaw ma nu tuddati ah, bu nekk fii ci port Dakar mhm. Mali la waroon dem mhm. depuis ba mu bëggee waree dem mënta dem ndax insécurité bi fa nekk mhm. insécurité lan lay jur xiif ak mar ak coono ak problème interne ensuite assemblée bi ngay wax ñoom dañu dem ci ay élection bërki dem boo jaay mu am ay député yoo nga xam ne fal nañu leen ay nit jóg di leen contester nin lañ leen fale jaarul yoon. Mhm. parce que d'après nañ ko waxee. dafa am kenn koo nga xam ni. Mhm. moo doon candidat wu Karim Keita doomu mhm. président bi. ñoom ñu wax ni kooku dañ ko foqar ci. fal ko député. pour mën ko def président assemblée national kon xam nga ñaari situation yi bokkul. ñun dañu dem fi élection yoo nga xam ni kenn contesté wu ko. d'accord. kenn contesté wu ko. d'accord parce que contesté boo xam da ngay toog sa biir néeg di ko wax loolu du contesté. d'accord dañu dem ci élection régulière. Euh, euh, monsieur le ministre euh, beneen laaj bi mooy Sénégal ak Guinée Conakry ak Côte di ak d'Ivoire. dafa am loo xamante ni tey mën nañoo wax ne ñoo ngi ko fiy ruumandaat maa ngi dégg sax Alassane Ouattara war nañ ko investir pour ñetteelu mandaam askan ba di ko lànk la fay xew yaa ngi koy dégg manifestation ya. ay nit di ko lànk. ay nit di ko lànk. Mhm. Euh, wala ñenn ci askan wi. Ah, ok léegi boo demoon Guinée Conakry. Mhm. ñenn ci askan wi njortu nañ ne. Mhm. Alpha Condé dafa bëgg a def troisième mandat. fii ci Sénégal tamit ñenn ñi njort nañ ne président Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat te lu jëm ci mbirum troisième mandat est-ce que. <laughs> du mooy faral di indi jafe-jafe yi lan moo ci sa xalaat. <laughs> alors question bi ngay posé fépp ngay laaj wala. kaawu Sénégal ngay laaj Sénégal mais ak réew yooyu. non attends kaay dañu bokkul. léegi lan waaw kay lu tax kaay bokkuñ. lu tax kaay bokkuñ. Euh, <coughs> constitution ivoirienne ku nekk yaa ngi koy interprète na nga ko neexee nam la neexee mais ñoom la ñuy wax la ma ci gën a dégg mooy Alassane moo ne woon. Mhm. dootuma doon candidat effectivement moo ne woon dootul doon candidat. Mhm. ba tànn benn candidat yàlla def li ko gënal. Mhm. candidat ba faatu. te ku xam tuuti lan mooy élection présidentielle xam nga ni candidat kenn du ko préparer ci deux mois wala trois mois. Mhm. donc man gëm naa ni xëy na buru woon am sax gëm naa ni c'est la réalité bu dul woon kooku faatu. Mhm. kon tey euh, Côte d'Ivoire du ñu toog di discuté mais li am solo ci Côte d'Ivoire mooy ñu fexe ba la fa amoon bañati fa am la fa amoon mooy boddi Konté ba mu jur la mu jur tey parce que Côte d'Ivoire donte mel na ni sori nañu mais jege nañu trop. parce que crise bu am en Côte d'Ivoire. day mhm. répercuté wu au Sénégal. Mhm. bo mais ci côté boo ko mënti jëlee ñoom ñooy interpréter seen constitution seen leneen ak leneen. Mhm. boo demee Guinée bari naa fa trop ay xarit parce que man aussi il faut nga comprendre ni. bari na réew yu nga xam te damay liggéey ñoom ci question yu bari. Mhm. def naa ko en Guinée Bissau enfin je veux même pas maa ngi liggéey ak sama ay xarit yoo nga xam ni Guinée Conakry lañ nekk ñaar ci ñoom nekk ay candidat à l'élection présidentielle ak yeneen réew yoo nga xam ni damay mhm. liggéey ak ñoom d'accord donc damay suivre de très près même Mali gi ngay wax ni uh-huh. damay suivre de très près situation nga maa ngi fa am maintenant bokkul ak situation wu Sénégal hmm. li tax mooy keroo ba ñu tàmbalee di wax affaire wu troisième mandat quatrième mandat ou cinquième boo fàttali ko man maa jëkk bind ci presse bi ni monsieur le président vous n'avez pas le droit de dire ni oui ou de dire non wax raison yi tax. Hmm. ba sax suñu frère Moustapha Diakhaté maa ngi koy nuyu moom it au passage ma gis mu def ci benn poste ni Macky Sall conforte Serigne Mbacké Ndiaye dans sa position. parce que xëy na avant kenn di ci wax man génn naa ci joxe ci sama xalaat ñaareel ba. élection présidentielle xam nga ma damay nekk à l'aise ci débat yooyu. mais loolu foo ko tegoon monsieur le ministre. waaw waaw xam nga fi ma ko tegoon hmm. ah. man dootuma doon candidat kon ñu ànd ak yow ñëpp ku ci nekk am na droit samp dëndam te gouvernement dafa am lu mu laaj dafa laaj solidarité dafa laaj jàppalante. ok mais benn gouvernement bu ñaar wala ñett ñeenti di nekk ci kenn ku nekk di candidat la solidarité mënul am bu dee nee nga damay doonaat candidat ubbi nga campagne électorale permanente coow li ñuy wax ni bu boobaa day. gën kon yow wii noo yow yaa ko fi indi suñu man maa ko fi jëkk a wax. alors deuxièmement boo xoolee situation wu Sénégal man la man damay nekk à l'aise li tax nekk à l'aise mooy débat bi dañ ko amoon 2010 2011 ak Ablaye Wade la ma ca doon wax moom lay waxaat élection présidentielle xam nga fu muy ko mhm. benn mooy ki bëgg a doon candidat kenn xamul Macky Sall dafa bëgg a doon candidat wala déet ñaareel ba ki bëgg a doon candidat déposer dossier fa mu ko war a déposé muy conseil constitutionnel conseil constitutionnel joxe résultat ni diw ak diw ak diw ñooy candidat boo fàttali ko en 2010 2011 loolu moo nekkoon sama discours Macky Sall mii ba mu doonee candidat. ñeneen dañ ñeneen doon candidat ñeneen ni Ablaye du fi doone candidat ba conseil constitutionnel ne Ablaye de candidat la moom dafa ci leen fi ñukk mais mais avant avant 2012 avant euh, bi ñu Ablaye Wade avant muy déposé candidature am da nga doon wax ne am na sañ-sañ nekk candidat loolu nga doon wax 2012. génneel kaset bi nga teg ko sama position musul changé. waaw moo nekkoon lan mooy. yéen opposition bi contesté candidature Ablaye Wade. waaw du yéen a koy valider wala ngeen invalider ko. mais Moussa wax atta atta ah. rek man kay boobu nee naa la je défie quiconque génneel cassette yëpp teg. d'accord mooy conseil constitutionnel moo am sañ-sañu wax ku doon candidat ak ku doonul candidat tant que egguñu ci loolu. d'accord mënoo ni kenn léegi monsieur le ministre est-ce que yow. Mhm. jàpp nga ne. Mhm. yow si sa xam-xam. Mhm. ndax sànq yaa fi wax ne am na réew yu bari yéen a ngi collaborer di liggéey. absolument Euh, te ñoom si xam-xam lañ ko teg. est-ce que yow jàpp nga yow si sa xam-xam que ne président Macky Sall am na sañ-sañ euh, nekk candidat. loolu dégg li mu la man maa ci jëkk joxe position ni nii wii nii non bu jotee ñu wax ci jotagul. mais yow doo li may wax nii nag xam nga yow attends li may wax nii. Macky Sall taxul ma wax ko. position de principe la boo nga dama ko wax avant Macky Sall di ci wax. d'accord bis bu ñu ca yeggee rek. Uh-huh. position yi dina leer. d' accord <laughs> jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, léegi euh, ñu wax ci li nga xamante ni mooy élection locale yi nga xamante ni kenn xamul maanaam maanaam kañ la ak li nga xamante ni mooy dialogue national bi lan moo ci sa xalaat si dialogue national bi ci liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy ñoo ngi koy def ñenn ñi sax dem nañ bay ruumandaat gouvernement d'union nationale ba ñuy xalaat ne ñenn ci opposition mën ñoo ñëw dugg si lan moo ci sa position. waaw xam nga question yi nga posé nag dafa yi nga soulevé dafa xaw a bari. waaw dafa lépp dafa lalu si dialogue national bi. comme waxtu yi ma ngi. waaw alors benn bi waaw. mooy élection yi ñu jëm nii. Mhm. élection locale yi. Mhm. li tax élection locale yi ñu di ko retour euh, reculer ak reculer waat parce que il faut que ku nekk tamit ñu situer sa responsabilité opposition bi ñoo jàpp ni fichier électoral bi baaxul ñoo jàpp ni processus électoral bi baaxul ñoo jàpp ni parrainage warul am ci élection locale. Mhm. bu dul woon question yooyu ñu soulever kon tey kenn du wax wax élection dina am wala du am. mais question yooyu parce que man bokk naa ci dialogue bi. Mhm. man ci commission politique bi. donc question yu suñ ko posé ñu war ko waxtaanee ñu waxtaanee ko ba am luñ ci tënk ñu ci tënk mooy ñun d' accord nañu pour ñu auditer le fichier électoral bind nañu président mu bind président de la république comme ça partenaires yi nga xam ñoo jàppale Sénégal en matière d' élection danañu lancer appel d' ñu jël ay cabinet d' ñu auditer fichier électoral bi. Mhm. audit boobu ñun diñ ko xalaatee mooy man na dem ba am 3 mois maximum. évaluation processus électoral bi même chose donc mënoo ni nañu auditer fichier bi pour ñu auditer ko dina am trois ba pare nga mhm. bëgg nañ dem élection ci date bi euh, ñu doog a bind pare ñu doog a bind ci bindu bindu ci liste ñi bëgg a changer tout ça mhm. loolu soo ko bëggee parce que pouvoir bi mënoon na ni non man damay organiser élection bu booba dañ naan dañu jaay doole mhm. kon fekk si nañu opportunité ba pare nee nañ parrainage bi tamit euh, dinañ ci waxtaan est-ce que danañ ko dindi duñ ko dindi commission bi dina reprendre travaux yi est-ce que dana am est-ce que. mais yooyu yëpp waaw mais dialogue national monsieur le ministre am na njëriñ. mais am na njëriñ. lan mooy njëriñ lan mooy njëriñ wax nga ko xam nga yaa ngi wax parrainage naa discuter est-ce que nañ ko def am duñ ndax dañ koy dindi bu dialogue amul noo koy defee fichier électoral bi ñuy wax nii man ma gëm ni fichier bi baax na xëy na yow wala commune gëm ni bi baaxul bu dialogue amul nuñ ko changé te dama la wax ne élection lu mu jar jar na ko. Ah bon waaw parce que élection mooy ah. stabiliser réew mbaamu mu ko. ok donc élection Mali gii ngay wax nii. li yokk musiba mi mooy élection législative yi. ñoom ñu jàpp ni fal nañu ay député ñu waroon na fal. ba CEDEAO ni woon député yi nañu invalider seen seen élection. donc élection lu mu jar daf ko jar. maintenant lu jëm ci mbirum gouvernement d'union nationale loolu responsabilité président de la république la. moom la ñu fal faluñu ma Samba faluñu ma dem Demba. moom mooy dem ba jëmmi jamono mu seet ni diw ak diw kat war nañ mën a jàppale ma si ci liggéey bu boobaa kum ca woo nga bëgg a dem. lam la jox nga man ko yor nga di ko mën naa ko ko mën yor. d' accord léegi euh, euh, benn question ci euh, une minute monsieur le wala deux minutes sa benn dëkkandoo wala sa Thierno Alassane Sall dafa génn benn livre. wax ci loo xamante ne ci pétrole bi def ci ay révélation mais li ñu la si bëgg laaj rek mooy dañu faral di gis Sénégal ñoo xamante ne dañuy nekk ci biir nguur bu ñu génnee si nguur di sulli ay mbóot yow loolu noo ko gisee. tënk nga wax ji xam nga sànq da ba dégg bi may ñëw maa ngi déglu ci rajo bi seen rajo bii. benn professeur d'université defe naa ni su ma juumul Gaston Berger la nekk. Euh, ñu di ko laaj mu am lu mu ci wax. loola je pense que dafa tënk lépp gis nga man livre bi ngay wax nii liiruma ko te du ma ko liir gis nga man article de presse bala may liir article xool ki ko signé xam na su ma xamee ki ko signé xam naa fu mu jëm su dee xaw ma nit ki nag man naa ko liir mais man li nga wax nii damay revenir ci loolu. ndax doo liir livre bi. ok. xam nga boo nekkee ci gouvernement waxuma ne waroo génne dara waxuma loolu parce que pour man loolu benn affaire la mais boo nekkee ci gouvernement di liggéey ci gouvernement ma yore nii boo bëggee léegi mën naa la ko tegal benn vidéo boo nga xam ne Thierno Alassane Sall moomu moo ci wax ni ñii wër ci àddina bi di wax naan contrat pétrolier yi contrat gazier yi dafa am mbuxum dañ ci dugg ay milliards waxuñu dëgg wax ci wax ju donc xam sax duma ma ko répété ci ci micro bi mi bu ku dugg ci YouTube gis ko. Hmm. ku dugg Facebook gis ko moom moo wax loolu. waaw moom mi wax loolu su wëlbati ko bind leneen kan lay gëm te benn nit bi la mhm. donc xam nga li may gëm mooy jikko te wax nga ko léegi mhm. nit am na man mii wax ak yow yàlla seede na ni mun na maa xam wala ma yorloo nga xam ne su ma ko génne woon ci réew mi tey réew mi tàkk ku mel ni Ousmane Tanor Dieng yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla yërëm ku mel ni Djibo Ka yàlla na ko yàlla yërëm man ñu doon suma ay xarit lañ samay mag lañu. Mhm. nga yaakaar ni ñooñu li ñu xam ci réew mi bu ñu taxawoon benn bis génne ko ci réew mi Sénégal du tàkk looloo tax ma ni la jikko laay jugé nit parce que benn nit ki bu ne ma lii dafa ñuul wëlbati ko ne ma lii dafa weex lan laa war a mën a gëm donc moo tax man la livre boobu ñuy wax amaluma solo yàlla seede na ni mhm. liiruma ko dégluwuma ko duma ko liir soxaluma amaluma benn. intérêt du guddi du bëccëg. <laughs> jërëjëf monsieur le ministre ñoo ngi lay sant baax euh, di la gërëm di am mbégteeg euh, kontaante bu baax a baax ci waxtaan bi. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant di jégalu rek ku fi déggloo nga xam ne neexuloo nga jégal ñu ko suñu yéene mooy wax lu baax. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Serigne Mbacké Ndiaye ñu lay euh, sant bu baax a baax di la gërëm di rafetlu bu baax a baax nag kàddu yeeg lépp ñu fàttali ne yow yaay njiitul convergence libérale et patriotique nekk coordonnateur du rappel rassemblement pour la pérennisation du libéralisme mbokk yi seen émission pencum réew mi la woon ngeen àndoon seek Abdou Khadre Seck Léopold Mendy moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë jëf jàmm ak jàmm